léegi ci naaj si doomu mbër. lamb boole laa war laa boole laa doomu mbër. waaw man man moom yooyu garaawul si man. parce que man yooyu moom mooy loolu quoi mooy bëre yow du ma jàpp ni sax tey tey tey tey ma bañu ma mbër yooyu parce que xam maanaam man li ñu naan jaam kii wala mënoo ko rek dañ jëflante ku ne xam kii moo mën man bu ñu kii moo mën si làmb yi ñu moom dama naa la bu ñu laalee léegi ku nekk foo féetee. kon su ma déggee sa wax yow. ilee rek nga xamee woo janj ak joor. barki Serigne Touba man sëñ Bamba laa gëm man taalibe sëñ Touba laa aw ma lenn lu may dawal mbër aw ma lenn lu may tiital mbër Ndiaye Tine bàyyiwu ma ko sa xel topp ma ko li jëntiwu ma xaw ma suñu muy dund maa ngi bëre maa ngi dund sama dund Franc lijjanti wu ma xaw ma lu muy dundu man sama bopp laa gëm. Franc li mu wax moom dafa maa naqari. dafa maa ñun doom Pikine lañ man bëgguma ko néewal nit doole Franc dafa keroog baat boobu mu wax baatu néewal nit doole la mu ne Pikine amul ko mën a daan néewal doole yéen ñëpp mais parce que xam nga rek li mu xam naa xam naa Tyson 2 mi daan moo tax mu jàpp ni ma lool mais Tyson 2 ñaar personne la daan eh, eh, parcelle Franc benn nit la ba pare ne yow Pikine amul ko mën daan xoolaatal ah, man de benn nit laa jàpp ni daanul jara waa ak jara waaw. waa ak ngeer. daanul Tyson waaw mais waa léegi day war naa. dafa mel ni dafa mel ni Franc leen lim fi wax mi ngi mais loolu mooy loolu mooy yaa mën Pikine. ah kon kon kon kon xanaa waa Guèye waaye yëpp maa leen mën. ah, ah daan naa fa jawdin daan fa tampon ndaw. yaa ngi dégg daan fa booy mbelax. léegi xanaa maa mun parcelle. maamun Guèye waaye kon maamun Guèye waaye kon. mais mais loolu dafa yomb maa daan diw maa daan diw maa mën ñooñu ñëpp. xanaa siège bi kon rond-point ko teg. ma daa Franc jegewul xam fan la nekk nii. case ba la toog ba léegi di wax. case ba barki yàlla la rond-point rond-point terminus bi case ba toog di ndel. siège mi maa a laaj ko xanaa Dominique nga ko teg ma ne ndox di jéggi pax laa la wax. Franc mu may dégg bu baax dama ni yow Franc njaago bi man acci ñi laa la wax bu fekkee gëm nga li ngay wax nga ne Pikine am ku la mën a daan jëlal sama avance ma duma la daan la man maa duma de caat boson Franc su jëlee sama avance ma duma ko daan ko du ay wax lu may jëf la classico la waaw làmb ji waaw léegi xam dafa nekkoon phase Pikine. waaw léegi bul bee tourné. léegi dër bi la. waaw parcelle Pikine la te te coolu lu jeex de. du muy jeexee Franc maak Franc bi nii fu muy jeexee coolu mënul jeex. non yéen mel ni yéen jeer la. Laye Ndiaw des na xam. mu ne ah. lekk na avancé. sëñ Bamba. avance yi mu doon lekk avance bii bu ko du xam ni du avance yi mu doon lekk. Ah. du benn maa ko gën a doon njaago fuuf. njaago miy ñoddi samay mbokk njaago yaa ngi fii si njaagoy laay nekk si njaagoy laay nek guddeeg bëccëg. billaay walaay si njaagoy laay nekk chaque jour. si njaagoy laay nekk jënuma jënuma bokk ak sa njaagoy laa wax man maa la wax loolu. moom mi si nekk njaago si ndey njaago si baay nga gën laa nekk junuma nekk njaago laa la lam mën si dëbbu naax ak falaat daf may xaar Franc buñ tëg bu laa ma buñ tëgoon laa ma ji laax daf may xaar daf lay lan hmm. daf lay xaar war na sëñ Tuubaa mo mbëri gars yi nekk fii di wax rek de ah. man xam mu ne ma wax sax mais làmb moo laaj lii parce que tamit mënuñu nekk si làmb depuis boobu léegi di bëree xam nga di daan suñuy morom tamit ñun dañu war a yéeg il faut nga wax xam nga il faut bi nga toog def huit combats huit victoire bokk ci révélation xale yi war a génn Pikine kon di nga wax sama génération ñëpp am defet génération bi ñu dem bëre keroog max man grand combat la dem bëre ñoom seen grand combat lañ dem bëre man toppatoo ma ni sax ñu man bëreewu ma spécial grand combat la dem bëre sama drapeau laa jël yóbbu mbër mi bëre premier combat sax si moom grand combat grand noonu la demee nag mais nit ñi dañuy jàpp kii mbër mu ndaw kii mbër mbër mu mag amul. kase mooy seen problème waaw. non parce que tey jii yow imaginel Balla Gaye bu romboon fii gars yi dañ ñaan mbër man bu ma romboon fii dañ ñaan mbër kon mbër la. kase da ñaan mbër la mais lan mooy problème bi kase mooy seen problème te mbër noobul la mbër fu mu mbër fu mu nekk dañ ko war a teral parce que mbër buur la parce que foo jugee nit ñi topp sa ginnaaw. léegi mu romboon fii léegi xale yi topp ma njaga njaga njaga njaga njaga. fi ñu toll nii moom yéen bëri moom Laurent leen ëpp coow na <laughs> léegi Laurent leen ëpp coow moom. <laughs> Laurent Laurent booy boobu borom ngi toj mu ngi toj <laughs> mu ngi mu ngi toj kii bi TikTok bi. mais mais gis nga loolu yëpp dafa dafa bokk ci làmb. gis nga loolu mooy làmb ñëpp duñu ay noonu. place liggéeykaay place liggéeykaay parce que ñun ñëpp mën nañ bokk société mais bu ñu wàccee ku nekk sa kër nga jëm mais société bi nag liggéey moo ñu fa yóbbu kon dañuy liggéey après bu ñu génnee nag ndax bu ma romboon nag léegi léegi beneen mbër ak beneen ak mbër jàmm ngay seek ak man ah du ma la woon reewande doo ma woon reewande parce que mbëri dofuñu ni nga leen gisee nii si laam yi la ñuy nekk rek di xaw nii mais gars yi ku si génn si ngay respecté dofuñu xamee nañ xamee nañ jaaj ak joor man mbër du ma yàpp voilà parce que loolu la quoi léegi nag Ama Baldé daan. waaw. da koy duma daan ko loolu leer naa la wax. du jeex. <laughs> seen booy yi sax nañ xam ne ñun tamit seen booy ñuy ñëw sax du jeex parce que daa am lu tax quoi. ama comment mhm. si xeetu bëri si ñoom ñaar. ama mën ama bu doole. Ah. làmb xale. boo ñaatafaat it. boo tafaatin mi. tafaatin mi nga xam ne loxo yi mel comme mbàccum gerte. bàyyi ma tafaatin déggoo li mu la wax ñun Pikine dañu mën bëre ñun yàlla moo ñu defal loolu kuñ kuñ sekkal ñun nangul forcé la loolu wër na yàlla da ngay nangu ay boñaay yi ñoo mun ay tafaatin yi mais làmb kuñ la boole da ngay bëre rek ah mais gerte daw daa garaaw tafaatin tafaatin yow. ak nangoo daanu Pikine ah 2010 soreetul na. 2010 soreetul. 100 pour cent Pikine bi 100 pour cent Pikine bi est-ce que Ndiaga gis na si boppam. non 100 pour cent Pikine bi xam nga ñun moom 100 pour cent 100 pour cent Pikine la ñun ñëpp mais tey jii nii ñun ñëpp bokk Pikine ku si xew la gars yi dañ la ñëw taxawu kon sans loolu mooy 100 pour cent soxlawuñu si xaalis soxlawuñu si dara li ñu si soxla daal mooy heure bu nit ñi xewlee nit ñi dañ la ñëw taxawu loolu mooy 100 pour cent man de loolu laa jàppee 100 pour cent bi. te tamit boo Niang bu amoon combat gars yi dañuy dem open press am dañ ciy ñëw jàpp ama noonu. combat gisuma si leader Pikine yi tax ñuy wax. mais leader Pikine yi dañoo voyage. am nañ seen mu ñëw na si kër gi gis naa ko may na ma xaalis bu bari tamit xam nga tamit kon loolu mooy 100 pour cent ma seen na ma bu bari di lu ñu waayal la njàng bu baax xam nga di nuy jabaram xujo tamit bu baax ndax kooku moom suma lépp la loolu mooy 100 cent ñun Pikine lañ am Pikine amul coow. gars yi ngay dégg ñuy wax ni yëpp nu mu fa demee mooy ñi fi dëkkul ñooy wax mooy ñi paas. Ah, kon Pikine daa am ñu paas. daa am ay raxal si biir léegi raxal yi mooy benn njaga mooy dem géejawaay am fa benn soppe indi ko Pikine léegi kooku mooy génnaat dem naan waaye Pikine de gars nii ak nii ak nële alors que nekkul loolu quoi maanaam lu ñuy wax noonu nekkul si Pikine. maanaam daal su ma déggee sa wax kër lu fi réer nañ xool gan gan yi gan du yeewu béy da ngay gis tey jii nii boo duggoon Medina wala nga dugg biir Dakar ay jamono laa la wax de te pourtant ba léegi sa soo moytuwul da ngay naan doo ñëwee ñu ne la foo dëkkee nga ne Pikine dañ dañ lay xool di mel ni kuy kii parce que dañuy jàpp ni li am Pikine mooy dañoo ay affaire waga affaire yooyu loolu amul Pikine Pikine jàmm lañ xam ak salaam boo ñu bëggee indil nag loo xamante ni si nii ah mooy loolu de max bi day tas Ndiaga Thiam la woon nekk doomu champion nga gis combat bi mu déparé ba fi mu yegg si tey xa tamit Franc nee na digganteem dafa jaadu diggante ak fara moom moo ko wax sa jaadu na ndax fara def na 10 combats 10 victoire moom Ndiaga def 8 combats 8 victoire kon ñoom ñaar jaadu na te Franc nee na Pikine ku ko fi mën a daan amut Ndiaga nag moo wax du samay wax Ndiaga nee na fu mu ko fekk dina mel ni mbàccam gerte sa Ndiaga ku ne combat mu ndaw na jàppale sa combat bi nii am nga si jàppale ñu baax nga sant gërëm ñi la jàppale di tàggatoo. waaw bisimilah rahmaani rahiim rek di nuyuwaat ñëpp di nuyuwaat sama grand yi baxaw ñi ñëpp su ma waxee baxaw rek wax naa ñëpp waaw parce que ñi dañuy sonn si man te defal ma leen dërëm wallaahi maa gën a tuuti nag biir Pikine di wax ni yàlla nañu yàlla di continuer di dimbali bu baax a baax a baax di nuyu nag di jégal waa koñ bi yëpp. parce que laamu dafa metti da ngay tooñ ñett doo ko yëg moo tax képp koo xamante ni si nii njaga tooñ na la wala jàmbur tooñ na la maa ngi lay siy jégalu bu wér a wér a wér di leen bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama père Alioune Naar Pape Mbacke di ñaana sama père Modou yàlla yëkkati ko fële mu tëdd di nuyu Cheikh Cheikh Tidiane Thiaw jàpp si bu baax bi daanaka lépp moom la. mairie koñ yi saako ceeb bi parce que su ma amee ni nga may gisee nii mairie koñ bi mairie laa la wax ma waxuma la mairie de. mooy meex waxuma mairie yor gox bi de. mairie yi dem marché mairie yi dëkk si koñ bi. Ah. ku nekk ñëw yaay jël li nga am nga indi te loolu amul mbër bu ko am man maa am loolu man mais ñi dañuy indi saako ceeb ñi indi la diwlin ñi indi la lii ñi indi la lee te wanu ma ne dara loo xamante ni si kii jàmm ak salaam ak yar ak teggin nekk laa leen wan ñu nekk samay yaay tamit di nuyuwaat sama père alinaar bu baax a baax a baax baax Pape Tuwaawoon Modou Gueye Ibou maa ngi leen di siyaar samay mag ñoom Tidiane mais di nuyu nag kii ma lay wax moom mbay mbay do mbay paala transitaire maa ngi lay siyaar bu wér mbay paala parce que yow mbay mbay sama mag la de mais wallahi azim lu may defal amul kenn ku ma koy defal heure bu jaaxle si moom laa jëm mbay mbay dundal mbay paala mbay paala borom ak Evra Evra transfert tamit maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee doomu nday Ama Evra mbës maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee gaako maa ngi lay bëggee Bas Pade Gaynde maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee bu baax a baax sama grand Tidiane waaw maa ngi lay bëggee waa curi bi maa ngi leen di waa kamb bi Pikine tali bu bees riidis ikotaaf Euh, daaru waa tali bu mag buuxante ba ñoom ñoom wax ñoom guy gi maa ngi leen di bëggee sama waa kër maam maa ngi leen di siyaar fi ma juddoo ñëpp maa ngi leen di bu baax leen wax ngeen ñaanal ma waa angaar buntu Pikine ñëpp maa leen di siyaar ndax parce que ñun Pikine boo xool ñun ñëpp a ñu xam waaw ñëpp ñu xam. waa ñi xam li may wax nii ñu dem ba si kanam damaa bëgg gars jox ma si mbëri mag yi. mbëri mag yi man laa soxla ñi may bëreel duma seen moroom nañ ma jox punkal yi si boppam ma bëri ak ñoom faran préparel xam ni làmb ji boo gëmee sa bopp suba suba suba mu taxawoon ma duma la dumuy métti dog la daan lu leer daa lay wax parcelle amul mbëru nga Pikine amul mbëru la mun daan Modou Lo seen patron laa la wax bu ñu tëjoon si néeg bu ñu bu ñu tijjee néeg bi laa la wax heure bu ñu ko tijjee fekk ma yëg ci kawam nga naan ma nii naa nele barki sëñ Modou Habib amul mbër parcelle laa la bu moo mën a jëngal seen booy yi sax soxlawu ma leen seen i grand laa la parcelle amul mbër bu moo mën a yëngal parcelle mbërum ndaama yaay fa nekk jéem leen ut ay mbëri njool mbërum ndaam mënu ma fa daan garga yow baalum génn si combat bi nga xool ñu jox ma yop ñu paas ma ko ma tulli ko fële nga naan ma nii amul mbër bu may taxawal mbër bu ma taxawal mbër bu ñu jox sama avancement la mën du ma du ma may mbër bu ma jox avance am laar nag ma xaar xam ne damay ñëw par force damay ñëw amul mbër bu may taxawal naan dama lay xaar sama ginnaaw damay ñëw li maa ko wax mbër bu may bëreel préparer xam ne da ngay dem estati loolu moom na nga ko xaar moom. xam nga dafa am mbër mu ne xam ne moom dafa dafa ñëw daanaka moom li ko gën neex si làmb mooy mu jàppale tent la yow nga ñëw ne yow bëri estati nga leen di yóbbu. eset laa ni yóbbu parce que yow ba nga waxee rek li nga li ma la wax mooy du mu la lu mu wax mooy du yàgg dara léegi léegi fii di yéegi digg du yàgg ah. mais yow bu dee da ngay bu dee yow li nga li li nga kii li wax dëgg la ah. déglu ko dem na si biir géew bi xool ko li ko waxoon li na wax lu mu la wax ndax dina ko def wala ko def te automatiquement loolu laa def kon nga war a xam ni kon kii li mu lay wax dëgg la te li mu lay wax nii nii mooy li nekk si man ma ne mbër bi ñu ma jox xaar ma xam ni damay dal sa kaw. nga ne man njaga caatu boson buñ bëree laa la wax mu yóbbu la nii laa la wax ñëpp di la TikTok déggoo li ma la doo gaaw a sax si TikTok bi laa la wax lu leer laa la wax mbay bu paala maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax waaw mention spéciale parce que yow jàmbaar nga. jàpp nga si affaire bu baax a baax a baax di am contentement nag si yow bu baax Cheikh Tidiane Thiam duñ la mës a fàtte lu bëri yaa ñu ko defal xam nga sama père Alioune Naar nag dama lay sant bu baax a baax sama père Paala xam nga di nuyu nag sama waa atelier booy yi fa nekk yëpp maa leen bëggee waa Guédiawaye te man Guédiawaye laay liggéeyee waa Guédiawaye yëpp maa leen bëggee Tafa Diagne sama gaay yëpp maa leen di siyaar xam nga leen nuy ak waa curi bi foofu waa curi bi foofu maa leen di siyaar Baye Daouda fàttewuma la yaay borom tëngeej yow xam nga nu mu demee ak sama copain bi nga xam ne mooy sama géwélu juddu kii man moom ñoo defandoo avance ba nu ñu màggee nii te ba léegi ñooy ànd soxlawul sama dërëm mosuma ko fay te heure bu laa mu amee mu ñëw defal ma lu ci war soxlawul ma dara ndax man moom yàgg na daal di nuyu nag waa koñ Falaay bi zone boobu parce que gars yi Pikine la lépp pikin la lépp Pikine la ndax ñun ñëpp ñoo département Pikine yëpp maa ngi leen di soir di leen wax ngeen ñaanal ma waaw sama père dëggul maa ngi lay béggee bu baax yow sama père nga waaw mention nga moom di nuyu ñëpp père Gana tamit maa ngi koy soir bu wér a wér waaw Serigne Adja waaw di nuyu nag sama papa bu baax sama papa maa ngi koy ñaanal mu am wér bu baax a baax a baax parce que ñun suñu papa lañ am ku bëgg suñu papa moom li lañ lee bëgg man ku jàpp sama papa ma jàpp la ku bàyyi sama papa ma bàyyi la parce que man sam papa laa am non moom jàmm Baay Faal la ki taalibe maam Seera Faal la mooy sëriñ kon am nga sëriñ parce que ñun mooy suñu sëriñ ñun ma duggee néegam fii wala mu ne ma kii mooy sama sama sëriñ médailles yi nekk fii laa la ku mu doo dox parce que xamul tax sam dafa bëri li mu bëri te pourtant dara si mooy loolu. nga xam nga ne Pikine comme tey. waaye mhm. père kii mooy seen capot. li mu bi. ah père <laughs> na la kalaate kooku. moom li muy conseil waate ànd nga si. waaye kooku <laughs> mbër. bu ndaw du xalaat. lu waajooj naan kaana lu muy wax naan kaana du xalaat <laughs> de. mbër bu ndaw kaana la doon kaana la parce que mbër bu ndaw du xalaat mais yaa ngi entraîné rek waroo xalaat looy xalaat. waaw ah, man li moom am. bon. dootu yaa ma a xam lu nekk am. moo tax dañuy sant yàlla rek. di leen nuyu nag bu baax nag di leen nuyu bu baax a baax a baax. waaw di ñaanal. Mhm. tey nga ne ñëw leen. ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax. na ñaanal sa carrière gën a continuer gën a xam fi ngay teg sa tànk xam ne ñi nga gis fii keroog stade du sax sas la mhm. du sax de sas la mhm. sas nañ la loo xam ne nga xam ko nga ñàkk ko xam sas nañ la ndax li ma sax du rek mbër mun naa am lépp waaye munu pour mu duy stade bi ay mbokkam kese mun ñëw fa si bi kon jàmbur ci biti at ñi nga doon àndal demb ak bërki démb mhm. yàq ñoom la gën a la góorgóorlu gën a xam fi ngay teg sa tànk bu baax baax a baax SBT nag ñu ngi lay remercier bu baax a baax di jox sa wàccuwaay bu wér a wér a wér mm-hmm. maa ngi leen di bëggee nag di ñaan sut bi yàlla yokk ko mu gën jëm si kanam ngeen am si yeneen ak yeneen ak yeneen parce que yéen làmb ngeen di jàppale quoi mën naa ne mën ngeen si bay am dara mais làmb moo leen ñor euh, gis na nit ma làmb daa nekk loo xamante ni si nii porum Ndakaaru la bata dem bata kose parce que ñoom Balla Gaye avant ñu fi ñëw ñoom Tyson ñoo fi nekkoon ak ñoom Baboy tey jii nañu ba pousse nañ ñeneen ñëw tey jii ñoo ñëw ay ñoom Modou Lo xoola ñoom Ama ñëw nañ kon ñun ñii tamit dañuy ñaan yàlla yegg bu ñu yeggee ñun tamit ñu ñaan yàlla yëkkati yi booy ñu ñëw yéeg parce que ku nekk war nga am loo yóbbu sa kër parce que kay dajji feeraay kay daaj bant ñëpp dépense bu ñu yóbbu seen kër dañuy wut mais ñun dañ gën a metti rek si benn côté mooy sport moom metti parce que tey mun nañ la jox cent million mais cent million yi mun nga ko bañ jariñoo parce que yoon bi moo sori te dañoo am suñuy suñuy réalité Sénégal muy am nañ suñuy maam yi fi nekkoon xam nga boo amee combat di nga ñaanlu xam nga di nga génnee sarax di nga def nii di nga def ne waa koñ bi mairie koñ yi ñenn ñi ñëw paa ku nekk ak programme am ku nekk ak problème am te dangay ñaan yàlla nit bu ñëwee si yow diis sa soxlaam da nga ko war a faj boo ko yoree quoi même boo ko yorul war nga si mën a taxaw xool koo ko yóbbu mu lijjantil la ba nga boobu moom problème am faju kon moo tax ñu ne la mbër dafa bëri ginnaaw moo tax mbër mënul am xaalis làmb mënul fay mbër moo tax man damay ñaan yàlla man même bu ma ko fekkeewul yàlla na mbër di fayeeku milliard bal billaay walaay même bu ma ko fekkeewul bu ma ko fekkeewul man si kaw suuf mbër dem bay fayeeku milliard parce ku bëri kii bëree rek a xam lu si biir chaque jour ñu daan mbër nag nit di ko ñaawal wala di ko xuloo wala kii mais billaay làmb dafa metti barki alxuraani karim di nuyu nag ma fi après daay sama gars du nelaw billaay walaay di nuyu sama mbokk njaagoy nag waaw waa Ridis maa leen di siyaar bu baax a baax a baax di nuyu suma gars yi yëpp ñoom di nuyu ambourage ak sama copain bi Feeraay Fara parce que ñooñu su ma amee combat dañuy ñëw chaque jour di jàpp si affaire yi. sama ay samay mbokki mbër lañ quoi xam nga di leen nuyu nag bu baax a baax naa leen liggéey bi ñu dem liggéey yëpp lii la woon te nañ préparé waat yeneen si ni kanam parce que bu ñu sañoon tey tey ñu joxaat ñu avance ñu nekkaat si lu ñu nekkaatoon waaw waa Mbour Saly Manikula di leen nuyu bu baax ndax ñun bu ñu tey tey ñu ñu avance ñu téye billaay ñu bañ a am temps wu temps wu xalaat da leneen ku ñu jox nii ñu jël. wallaahi azim kuñ ñu jox tey fu mu gën a dëgëree nañ ñu ko jox fu mu gën a woowee ñu naan kii fi mën kii fi gën a dëgër bopp kii fi gën a kii léegi maanaam suñu génération ku si gën nañ moo ko jox waaw ah, gaa yi dina gën a dë ki si ah. yi nee gaa neewuñu kii la euh, caatu yoof loolu la ñu wax loolu laa dégg de ñu ne ñu ne moo daan ñëpp waaw ah. loolu laa dégg xaw ma nag nag moo si mën parce que man mënu ma loolu laa dégg quoi mais bu dee moo fi moom nañ ma ko jox man maa mën sama génération man. mu nekk ñaari caat. voilà mu nekk ñaari caat. waaw par force kenn day génn day màgg te maay màgg man. Ah. waaw. sama yi ñu bu baax a baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér wér di leen wax kookoy caatu Pape a caab di ziaraat kulluum nag kuy safoo SBT nuyu naa la bu baax a baax ziar la jox la sa wàccuwaay bu wér nag émission si mbër mi ngi noonu sa xale bi lañ sa seet si woon di wax beneen émission ak beneen xale fii si SBT Média kese rek dong lay doon yàlla mi borom jàmm nag su kum jàmmal nga am jàmm yàlla na yàlla defal jàmm ndax garabu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé dér ko yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawféex di def beneen émission ak beneen champion fii si SBT Média kese rek dong lay doon alaaji Maas doxal la ñu dem borom ñaari galon yi